kii la masata masata la sëriñ de laa ko tegoon masata maa ngi lay ziar masata. da ngay wér te xew ko. da ngaa nar a wér ba deux mille vingt et yaa andi Lac de Guiers. andi kay. masata ngi nii noonu nañ wéer xooli papis ñëwal moomoo fekkaale nañ fi tamit ki nga xamante ne moom mooy Masata moo andi Lac de moo numéro 2 ci otoom ñu gis ci journalu record bi ñu moom mooy moo nekkoon facilitateur bi ci côté Lac de moom ak Aziz Ndiaye loolu lañ koy laal rek comme ñoom làmb ji léegi bëgguñu di ci dugg lu bëree bëri dañ koy nuyu bàyyi ko mu mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak moom ci loolu maa lay nuyu di la maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay di la ziar di la jox sa njukkeel. laaj naa Lac de sànq nan la Gaston def ba convaincre ko mais nee na moom waxul ak Gaston yéen yéen a ko convaincre. waaw moom waxul ak Gaston ñu ñoo ko convaincre te xool fi ñu dëkk bi tolluwaay bi ni mu toll ak làmb ji ni mu suuxee ak li fi jaar lépp ah, kon Gaston di suñu père di ànd ak sumay rakk famille bi doon benn suñ ci gisee loo xam ne war nañ ci mën a dox pour yàlla sottil ko loolu rek la ñu dox ci doxu jàmm pour yàlla combat bi am loolu la rek mais du leneen waaw. est-ce que yomboon na ngeen wax ak Lac de Guiers ni ko jëlal 40 millions yi la gason euh, Fay rek tam doon laaj 50 mu jël ko. waaw jafewul woon nag vraiment parce que xam nga ay nit bu leen yàlla boolee ngeen nekk benn bokk foo leen dëkk am na loo xam bu ñëwee sollicité ko nga mën ci dara bi ñu waxee moom vraiment dafa wàcc ni ma yéen moom loo leen bëgg rek dinaa leen ci fekk si. comme que ñu ngi koy Gaston suñu kilifa la suñu papa la bu soxlaa dara dañ ciy jàpp. loolu donc te bu ñu ko waxee vraiment mu ànd ak yar ak teggin boo xam ni facilité ñu affaire bi vraiment mu yomb trop quoi. bu bu paasee géejewaay bi doomu géejewaay bi ndax Lac de Guiers da ngeen a am yeneen relation yu bokkul la. waaw xam nga dëkkandoo mbokk la te Lat ñun ñoo dëkk géejuwaay ñoo bokk fu ñuy yeewoo kon bokk euh, bu ñu woon amu woon relation bi yaakaar naa duñ nangul li ba pare dafa jël sama papa def ko kilifaam. sam papa nekk kilifaam lu muy def dina ci waxtaan ak moom diisoo seeg moom raison à laquelle bu lu may amee nii buñ buñ ko jaaree fi ñu ko war a jaar dina yomb waaw loolu la. yéen moom bàyyi ngeen a organiser combat daa mel. waaw lamb moom dañ koo ba sax bu du woon ak difficulté yi doole ñu fi gis parce que gisoo fi keneen mais làmm ci boppam moom dagg bee ñëw seetaan la ñuy def. du ñu dem di wutali mbër benn naan ko nii gàllaaj ak wala dugg na fii nangam lool moom bokkutul suñu mbir. dootu leen wàcc ci géew. dootu ñu ci géew dootu dugg ci lamb loolu moom pare nañ ci waaw pare ci de. Ah, mais mbër yi kon dinañ wedde seen mbër yi. ah waaye mbër la hmm. Ibnu moom dana ñëw. Ibnu na xaw ma ko wax dëgg si yàlla <laughs> dëgg la bëgg rek wala xaw ma Ibnu. Eh, xaw ma Ibnu de. Eh. waaw dëgg la bëgg rek eh. Ibnu moom xaw ma ko waaw loolu am na solo kontaan naa ci yow bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. Libaas merci dem leen. oto ngi neex de ci loo maa ngi nii per. man booy nga àndal nii ci ginnaaw. booy. ci lu ngeen nekk. Lac Papis. bëgg naa la. ñu ngi lay dolli bëgg per. ana say sangu wóore. Eh, dama jox sangu sa adversaire ñëw sangu yow nga ñëw leer nañ andi sa oto bu rafet. nee damaa ñi dafa ñëw sangu. promoteur bi ñëw sangu sa adversaire ñëw sangu yoo nga ñëw leer nañ. waaw ku lox sangu ma. waaw ah, yow dana ngay sangu. ah, ah sangu naa daal ndox ak kii. ci loo nekk ngi ci waaw sant bu baax. mais mais waa kër ah, kii Baye Allé yi dañoo teel a dugg ci combat bi te dara ñoom samay kilifa lañ samay kilifa lañ di nuyu papa Baye Allé Ndiaye Masata. bu baax a baax a baax a baax. Masata dee ngi wérdi rek nee na mm, mm, du ma waxagum. waaw ah, Masata Masata sama grand la sama lépp la waaw Aziz suñ papa Aziz Ndiaye. léegi daal yow mën ngeen wax Aziz daal bu ñu waxee rek ngeen seen papa Aziz mën na leen papa. waa cër bi cër bi lañ koy jox ba mu mat set waaw. parce que kilifa moom da nga koy delloo cëru kilifa. Mm-hmm. waaw. nan la Gaston def ba convaincre la. lu mu def ba ko non sama papa Goso ba léegi waxuñu ma ak moom de benn yoon la ñu wax ba ba léegi waxaatuñu ma moom. ba léegi gisante wu la ba léegi <laughs> gisante wu ñu. xam naa ne boo dugg moom baal ma nga ko njëkk a wax. <laughs> waaw moom sama père la sama xarit la. léegi fan la jaar staff bi ba convaincre leen lan la la staff bi teg. waaw dafa am fenn foo xamante ne ñun samay kilifa lañ samay lépp lañ ma respecté leen trop yaa ngi dégg mu dem toog waxtaan xam ñoo ñoo ñëw waxtaan ak man mm-hmm. expliqué ma yaa ngi dégg. wax ma loo xamante ne maanaam tey lii dal na xel. waaw te incha allah bu neexee yàlla ni ma ci doon jooy yëpp ñoom seen bopp dinañ ci taxaw bu neexee yàlla. Mm-hmm. waaw balaa ñuy ñëw ci adversaire bi rek dañuy des ci négociation yi ba léegi parce que li ñu gis ci journal bi tey moo ni mooy di Massata ak ak ak ak ak Aziz Ndiaye bokk nañ ci li nga jël combat bi. parce que Gaston yokk na sax mais ñoom la wax ñoom ñoo wax jëlee lim la fay nii rek ñoom après ñoo ci dugal seen loxo. yow ku la lu ne la dégg. subhanallah <laughs> <laughs> waaw ma sa bab Masata moom ak euh, sama baba Zin Ndiaye ñoom ñoo ne Papis jëlal combat bi nga bëri après li ci war ñun dinañ toog def ko waaw ah, mu nekk nit nit yoo xamante ne nit yi sàmm couleur lañ. biñ la waxee loolu hésité wu. Ah, bañ ma waxee loolu sama papa Masata la ci ëpp lu mu doon waxal parce que man lépp comme dañ ma yëg a teg ma ci loxoom. lépp moom laa ci communiqué ba mu toogee waxtaan ak man expliqué ma xamala si laa ne ah kon nag ma def li ñu wax waaw. def nga li ñu wax ba yaa ngi waaj si signé sa diggante ak Eumeu Sène bëre woon ngeen 2010 28 février mu daan la waaw safurla ngeen niil ca la Tapha Gueye yuuxoo woon ngeen bëriwaat le 8 avril 2012 mu daan la mm-hmm. nan la defoon ba daan la. daf ma jaay xelu mag. face à face yi wala ci bëri waaw ca face yi foofu la jaay xelu mag bu fa la njëkkee def loo ma loo xamante ne xam na ne man doomu laaxkat la doomu séeréer la doomu soose la mu force def loo ma loo xamante ne deret làqat bi génn na ma taxaw dëggal sama bopp mu nax ma mm-hmm. waaw te nax ba ma nax nag xale maa gën a de est que danañ ko naxaat. ah moom tamit dafa jóge ci défaite instant bi gaynde bu blessé dafa bëre ak Modou Lo Modou daan ko te mosu ñoo gis Eumeu Sène di tegal ay défaite. déggoo la ma la wax la ca nga ne mosoo gis Modou Lo Eumeu Sène. muy ay défaite. ci kàttanu yàlla ko tegal beneen. Lac de Guiers boo xool combat gën a xaar amateur yow lañ ci gën a xaar say supporters yow lañ ci gën a xaar yow pare nga bëgg a jëlaat combat bi diisalaat ko yow sa bopp. déggoo lu ma la man diisalu ma dara. diisul wallaay diisalu ma dara yàlla gën a diis lépp yaa ngi ñaan yaay yàlla na ko yàlla oyofal mais diisalu ma dara mais sama combat ak bi ah dana ne combat bu neex sax. Hmm. dina neex maanaam bëre bi dana bari wala xeex baay ñaar yëpp nañ indiwaat bu njëkk ba teg rek. bu njëkk ba. Hmm. nañ ko indiwaat teg. Hmm. te bi baa bu mu triché nag ba mu ne ma. day day ñëw pour xeex mu jéem a jaay xelam ak daw sàccaat. Ah, non yaay waajal gauche waajal droite. non ma la lépp la ñu fat loolu dañ ko fat mais bu mu fi nekk naan day jéem a teg xel nañ def loo xamante amateur yi bés boobu dana ne dinañ kontaan. Hmm. nañu dëggal boppam daal. mu dëggal boppam ak laa ak la dëgër. waaw wala du dëggal boppam. Hmm, est-ce que dina dëggal boppam. yow laa tontu ci est-ce que dina dëggal boppam. waaw est-ce que moom dina dëggal boppam. moom du dëggal boppam de. mësta daw de. waaw xam naa ne mësta daw. boobooy baax sax ndax li ngay mën a jam nga jam ko nga gis ko. est-ce que xam nga ne ñun bi ñu ko commencé seetaan ba léegi benn combat bu yomb lañ ko gisagul mu bëree ko. muy diggante mu Modou Lo bu mujj bii nii. yàgg moom seen première safoon na deuxième ba. safoon na moo Gris saf moo Balla Gaye saf na. mësul bëre combat bu bu bu yomb. waaw ah, yàlla baax na mësul bëre kaw combat bu bu ñu dajawaatee bii baare dina neex trop sax lu leer laa la wax combat bi combat géejawaay la combat Lac de Guiers la combat waay la. géejawaay nag million arène euh, saison bi yëpp foofu la dugg ren macha allah mbër yëpp am nañ combat. waaw sant yàlla sant yàlla baax a baax. amee ah, ah, noonu la làmb rek làmb la yi dañuy ñun dañuy def li nga xamante dañ leen di bëggal seen xol di sedd waaw am na ñu bëri ñoo xam ne bëgg nañ ko ba dañuy ñaan yàlla rek mbas bi jóge fi jàmm xam ba activité yëpp tegwaat ci yoon ñu xool nu ñuy def ñu jàppal ñu teel ñoo jàppal date waaw. monument bi rek amagul komba liiru. Euh, kan. monument bu. Mm. monument bu solo ndox. man de xaw ma nu mu tudd waaye man de grand liiru laa xam waaye tur bi ngay wax nii man xaw ma ko. waaw ah. ah. tooñ sama grand bi. Eh, sa grand bi de mbëttum noor la rek. ah. mbëttum noor. ba léegi yaay wax de. xam waxal fukki bukki guddi fukki bukki bëccëg. fukki guddi bukki fukki guddi bëccëg. fukki bukki guddi fukki bukki bëccëg. fukki guddi bukki fukki guddi bëccëg man loolu mënu ma ko de. loo man nag. a loo man. mbaadi mbandikul anakam mooy laal. mbal tentu la fanfan al di maayo ko soto ko tet. Lac de Guiers 2 la ani Eumeu Sène mbal daanu la ah bataanaata ko tet. mbal daana duwaala ñu ngi ko mbaa ko soto nag mam moo doo soto mun ma ke mbandikul ti mbal daana alien su duwaala waalo waalo yi pël yi mm. waalo waalo yi surtout waalo waalo yi maa ngi leen di sàkku ñaan baax baax ak képp koo xam ne séeréer nga di sama mbokk yaay ak fépp foo mënti nekk nga doon séeréer deretu séeréer daw sa yaram maa ngi lay sàkku ñaan bu baax a baax a baax bàyyiwuma kenn ah. koy waajal combat bi da nga dem ci dara am États-Unis wala da nga demaat Angleterre. Euh, ci Dramé laa bëggoon dem. waaw. Dramé. Ah, dugg see nga xam ne la si na ci ambiance ak vamos ver no que